علمهم قاد له ما شاء الله أسلم له كل كان asalaamaaleykum sunuy mbokku internet Dakar instant ñu ngi fii tey ci Thiès nag buñ fi ñëwee tey lenn képp ñu fi indi muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni soldaaru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xamante ni ñu ngi ci le 10 suba di la 11 incha allahu rabi mbokk taalibe di ko teewru ngir nga xamante ni ku tedd ki ba mu jógee géej gàttandu googu ñu ko gàttandu woon muy en 1902 loolu ku nekk xam na ko ñiy taxaw ñooy waa Jeysun di 313 wax dëgg fa yàlla ku nekk ràññi seen liggéey ci liggéey liggéey bu rafet ñuy waa Axlu Badar nga xamante ni ñoo àndoon nag jëmmi Seydina Mohamed ja maanaam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni ci ndigal ñëw téye ko ànd koog ñoom it ci beneen anam ñoom leen gis noonu ñu sol lu weex li waaw ñoom ñoo taxaw noonu nga xamante ni xiin yi ñu téye bi leen Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni di wax ne la leen mooy seen jaas yi macha allah ñu gis leen noonu ñu taxaw mbokk taalibe yëpp a ngi fa fu ne nii dañoo taxaw ngir xaar général Kara soldaaru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ji lañ taxaw di xaar nii fi nga xamanteni ni ci entrée ties bi wax deug lolu ndaysan lolu waaw nga gis ties dafa téla xat tay waaw ties dafa téla xat ndax nak ki ki fi ñew dafa kennal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu baka baka baka baka, baax ndokel ko bu baakha baakha baax diko bu baakha a baax fu mu toll rek ci mom lay nek inshallah ñu ngi gis nonu. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw waaw moo moo doon ki nga xamante ne mooy teew wax dëgg fa yàlla ñu ngi gis noonu convoi bi ñu ngi gis noonu convoi bi waaw ñu ngi gis convoi baa ngi noonu macha allah macha allah kooku mooy taawam Seydina Ousmane Mbacké Noreyni borom baax kooku ngeen di seen mooy taawi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di Seydina Ousmane Mbacké Noreyni borom baax waaw waaw. waaw ñu gis ni ñu gis ni lépp a ngi taw féexi lépp ngi taw féexi macha allah macha allah waaw délégation baa ngi noonu délégation bi ànd ak Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nee ngi noonu délégation bi macha allah général Kara ngi noonu di ñëw waaw ñu ngi seen noonu général a nga noonu ca kaw waaw Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nee ngi noonu ca kaw waaw mu nga noonu waa ñu dégg mbokk taalibe yi noonu waa ñu leen di dégg noonu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nee ngi noonu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nee ngi noonu le général de Bamba noonu le guide de la révolution pacifique ngi noonu مشي احمد كرام بك نوريني يا من يلا في ولك شيطان يا تبولنا شيخ بامبا في اجا في ولك te boole naa Cheikh Bamba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw kañ Go, go, go. Abdallahi ak Aminata la tànn moom mu tànnaat baayu moominatu muslimatu moominatu maskuratu ka leen baayoo moo di baayu xadijatu dëkkati nana la mbàkke jërëjëfati tey jéggalu werd yi ndax damay kuti doy loolu tax mënuma jékki di werd

Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñoo bi mu yaatu ñoo bi fii jërëjëf Cheikh ñoo bi mu yaatu bay may bay may muskil leen tuuti tuuti rek ñu dëgg tànk Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ca ñax ma na gaay gi jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul

Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu ngi noonu ci oto bi macha allah imam boo paree rek kii gàll si واللازم وجه بشكر بلا كفران تكفى حسابهم واجه بي شكري بلا كفران تكفى حسابهم نيران يالنا نيو يالا في ولك شيطان تبولي نوك شيخ بامبا في boole naa Cheikh Bamba Fall jërëjëf Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ngi noonu waaw mu ngi noonu mu ngi noonu ak mbokk taalibe yi macha allah. Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ngi noonu voilà mbokk taalibe yi gàttalu nañ ko ànd na nag moom depuis ci entrée ba Thiès lañ moom. waaw ñu dégg jërëjëf Cheikh ki gën ci ñun moo gën ci ñëpp Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul وجه بشكر بلاد تكفى حسابهم واجه بي شكري بلا كفران تكفى حسابهم فوف لا ورا دال gars yi ànd nañu moom bi ñuy dugg Thiès ba léegi naan jërëjëfe Cheikh. yal nañu yàlla féewaleeg seytaan ak ba lañ jëm xool la fa ak bopp taalibe ak si te boole noog Cheikh Bamba fi Happy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ganay fi jamono moom mu doonoon deret ci Boy Niang di rakki Boy Niang am sawar jox ko micro ñu ngi lay jaar. waaw jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye dañ fee àndat ñoo xam ni danoo bokk ak ñoom sëñ bi ñu bëggoon ñu ngeen laaj leen ñoom it ñu commencé wax ji ndax loolu daf ciy am solo trop. ku ci mel ni baay Galaye. ku mel ni waaw waaw waaw. bi lépp Baye Galaye li ma lay laaj yàgg Cheikh Ahmadou Kara ca démb tey jii di 2020 mu dikkee nii cees bi nga toogee mu mbooloo mi demee nii lu sax lu loo yëg. waaw man de xam nga ni man man damaa baaxoowul sax di wax ci ay rajo ay tele dama ko dama ko dama koy bañ waaye li ma la mën a wax daal mooy lii moom ku ko gis xam li xew kii mooy Ahmadou mu mujj mi kii mooy Ahmadou borom jamono c'est lui le désigné. waaw moom la ñu désigné <laughs> man nag damaa ragal euh, ay kii ak dañ ma cee tere lu bare bare bari waaw damay bañ a xaabaabal <laughs> jërëjëf waaw waaw xanaa topp ko topp ko moom c'est le c'est le modèle type moom c'est le modèle moom li da xam ne moom dafa jara topp mooy moom dula la woon kenn ku dul Serigne Touba xoola mbooloo mi ñoom ñëpp Serigne Touba la ñuy dund waaw dañoo nekk ci diggante Serigne Touba ak Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni foofu la leen dugal. waaw amuñu amuñu temps dans amuñu amuñu euh, jote ci temps wala espace déedéet ñoom génnuñu foofu waaw. Ah. <laughs> kii li ma ci mën a wax dafa bari dinaa ci mas a wax nag dafa jotagul. Ah, ah. loo ñu mën a baaxee tey ci ci Thiès. xanaa sant rek ndax ku gis lii xam ne ki moom Thiès ñëw na Thiès waaw ki moom cees boo gisee temps bi ni mu mel ak jadaaw yi xanaa gisoo picc yi picc gis nga lii ça montre que ni borom dëkk bi moom moo ñëw ci dëkk bi tey waaye nag moom lii kenn duñu mënta nekk ndax ni mu kenn kennalee Serigne Touba moo tax lépp di ko kennal moo tax xale yi amuñ ci moom sago te lu àdduna gën di dox maanaam ki mu doon ci Serigne Touba di gën a leer. macha allah loolu moom maa la ko wax moom. ndeysaan jaajëf waaw dégg ngeen ko noonu ñu ne lu adduna yi gën a dox mbiram ci Serigne Touba di gën a jox waaye moom par force dama koy xoj mu wax ndax daa fekkee. waaw jërëjëf waaw loolu. waaw loolu Ndoukoumane wax ñu ne dañ koy dëggal rek parce que Cheikh Ahmadou Koura Mbacké Noreyni dafa am lu bari loo xam ne daa daanu ko wax ci démb te booba dara xewugul waaw nee woon nañu daa am ay jamono sax mu ne di ngeen dem ba yéen ñi jege ma nii di ngeen dem ba bëgg maa gis mu jafe tey jii lii rek def na ci def naa ne exemple baa ngi nii tey ñu ngi nii bi ñëwee ci hôtel bi ñun mën nu koo teg bët sax kon loolu lu waxoon lépp gis nañ ko ñun nag Mbàkke nekkewun fu lu dul di gëm Cheikh Ahmadou Kora Mbàkke Noreyni waaw xamaloon nu ne nag suñ digganteet ki nga xam ne moo doon suñ jëwriñ di Boy Niang mu séqanoon moom nga yu yu ne àndat moom fu nekk wax digg yàlla yii yëpp sëñ bi waxoon nañu moo tax tey bu ñu ñëwee ba fii gis lii ak cant lañ koy def bu ñu doon buux sax suñu xol day sedd ngir sëñ bi dana ne woon jamono ngi ñëw di ngeen dem ba bëgg maa gis muy jafe kon loolu fi ne ci lañ toll moo tax ak cant lañ koy def jërëjëf Cheikh Ahmadou Kourane Mbacké nuyu waaw kooku ñu gis mooy Serigne Ousmane Mbacké borom baax di leer ci Cheikh Ahmadou Kourane Mbacké nooree nii waaw. Balay sa borom na Thiès de. waaw di wax ne kenn du Cheikh Ahmadou Kourane. moom léppam ci Serigne Touba la tàmbali yam ci Serigne Touba ku ne xam ne ni 11 novembre ci la ko tedd ko jógee Gabon ñibbisi murit ñu bari sax xamuñu ko waaye bëgg dundal bés boobu moo tax mu pësee ne tàmbalee ko Thiès ngir bëgg àdduna bi yëpp xam ne kenn du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke ndeysaan kooku doon wax kooku doon wax mooy Serigne Ousmane mbake borom baax di di di njabootu Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni di di di taawam waaye kii ñu gis bu ñuy xool mun nañ wax ni fa sëriñ bi gane àdduna moom mii ca gox googu la sottee ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga judd Cheikh Ahmadou Kara doon lim doon tey mu ñëw cees lii nu ngeen ko dundee. ah sant ko te ki rek di wax jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Ousmane tey dañoo bëgg wóor na sëriñ Touba ndax ki nga xam ni mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waa Sénégal mënuñoo xam li mu doon rawatina kees gii ñu dëkk ndax. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dafa def suñu jëmm yi ba ku ñu gis soppuñu bëgguñu bëgg ñu te Cheikh Ahmadou Kara Mbacké day nit koo xam ne sellam ak ni muy dundee Serigne Touba ak keeste ji lumière gi fi nekk ak tamit li mu woote si jàmm moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di di di koo xam ni waa Sénégal mënuñoo xam moom lan lay liggéeyal Serigne Touba moom day liggéeyal Serigne Touba si ndaw ñi day liggéeyal Serigne Touba si mag ñi kon Ousmane wax dëgg yàlla tey moom ak mbégte nan am te dañoo kontaan lool wóor na Serigne Touba kees gépp génn nañ kees gépp kontaan nañ jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni. balay sa gars yi nee na borom cees ñoo na Thiès de. borom Thiès kay dëkk na. waaw borom Thiès ak fépp. ak fudul Thiès. dégg nga de borom Thiès yi cee ngi nii. jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou kese moo fi ne de barki maam Seera Fall gis ngeen njabootu boppam gi ñoo ko naan rë jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu gis Cheikh Ahmadou Kara Mbacké saa saayirma ci jëmmam maanaam fii la ganee jamono wax dëgg fa ne nag Thiès mooy ndigg te man maay ndiggub Sénégal ku nekk xam ne 1902 la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jóge woon ca tukkeem googee njëkk gis ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Anta borom gaawaan woowaat maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñëwee ko njëkk dalal ñëwee ko njëkk a teetee ñu ñëwoon fii te suba incha allahu rabi la ñuy màggal sëñ Xalil Lazane Ba. jërëjëfati Cheikh Ahmadou Kara Mbacke nooree nii. Mbacke tey Thiès yëngu na. yëngu na trop lu yëngu moom fu mu jaar mu yëngu barki Cheikh Ahmadou Kara Mbacke nooree nii léppam dafay dëgg moo tax waaw la Cheikh Modou Awa Ba waxoon ci moom rek waaw ñëpp dégg ko mag ñëpp xam ko ñëpp seede kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacke nooree nii jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacke euh, man dama ci yokku ndax bu euh, buñ buñ ñëwee nag fii ba cees kii bokk na ci ay tarawliisu sëriñ bi yim ne ngurumtu bañ feeñal ndax ay mbind Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni fu mu génnee 5 heures et demi 5 heures 32 mu wéy ko tey Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gane fi jamono am lu mu waxoon ci cees Papa tey ñëw cees bi nga yow bi Cheikh Ahmadou Kara ne nga koy gis boo safoon way looy way bismillahi ku dul yàlla doo ku mu doo yéeme ibnu abdallahi ak aminata la tànn moom baayu moominatu muslimatook moominatook maskuratu kaleen baayoo moo di baayu xadijatu dikkati naanaan la mbàkke jërëjëfati tey jéggalu werd yi ndax damay kuti doy la tax manuma jekki di werd di la santay sama werd ta koy bind fuma yendo mama fanan bind di la sante di la tag ya jar bind ba tax na bu suba inshallah allah rabbi ñi ngi wo kep kuy mbokk talibé ñu wuy ci Cheikh Modou bakki nori ni wax deug yalla di wo wa Senegal gep ñu and ñew tew wuy ci Cheikh Modou karam bakki nori ci woote bi mu woote ndax lu ko ñor la ndax moy borom Thiès lu ma am mom la fu ma jëm moom laax nu ma mel de moo ko waral daal ci général waaw moo du ma mare ma mooy général waaw waaw soldaaru bamba bi mooy bëgg naa la soldaaru bamba la ni baykara général ndax sunu xol man moom lay delloo njukkal général lay delloo njukkal man moom lay delloo njukkal lay ndax lu nu am moom la fu nu jëm moom la ku nu xam moom la nu nu mel de yaa ko waral daal ci général. nuy mbokk internet Dakar instant ni ñu leen ko waxee woon defee nañ ko noonu ci sunu njortu ki nga xamante ni mooy. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké le guide de la révolution pacifique mi nga xamante ne amul maas amul dendandoo ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax kennal gi mu koy kennal fonk gi mu ko fonk ni ma leen ko waxee woon sànq rek en 1902 le Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jóge fële ci tukkeem ba muy le 11 novembre moom le 10 mu ñëw fi ngir feetee ko fi suba incha allahu rabi ak mbokk taalibe yi hôtel bi ci sunu ginnaaw foofu la dal wax dëgg fa yàlla ak mbokku taalibe yi duñ def lenn nag lu dul bàyyi leen foofu ba ci kanam ak ci yeneen ñu waxtu ñu àndaate yéen waa Dakar instant jërë ngeen jëf. Dakar instant rek yaa ma gën xam. man xawma ci kaw lañ jugee man dama jéggi saa rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. waaw ok mais loolu instant ca kaw ca kanam rek. waaw ah Dakar instant daal gis naa seen caméra bi ni mu timmi nii xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si page seen page YouTube dal. Wa Dakar instant bo xolé xoolee sen tour rek day woné lool Ndak chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. Ga ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné leen bëgg si actualité Ñew leen ci Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. waaye Dakar instant na fi nekkal Baye Fall na fi war a siiw comme ñëpp. wax ci Dakar instant. Dakar instant yéen boo yeewoo moom laay seetaan.